maintenant nag loolu moo fi ne par rapport à l'Assemblée nationale euh, leur déclaration a rattrape parce que li ñu doon ñaan yàlla mooy avoir une euh, une assemblée boo xamante ni opposition moo fay majoritaire. parce que pour avoir une cohabitation parce que ba ñuy nekk opposition loolu la ñu doon campagne à l'élection législative de 2022. <laughs> maintenant cohabitation bi ñu doon ñaan yàlla ñoom. am na am parce que le président de l'Assemblée nationale n'est pas du pouvoir en place. maintenant le président de République est intelligent parce que ba mu rencontrer président assemblée nationale bu pare dafa rencontrer le président du groupe parlementaire de Benno mm-hmm. parce que euh, mënuñu dem vers une crise institutionnelle moom il ne veut pas de ça bëgg na lépp loo xamante ni le pouvoir en place mu ngi koy mettre en en exergue rek assemblée jàppale ko ci pour mu mën a dem mm-hmm. parce que les par les gens parlent de la dissolution de l'assemblée nationale d'ici le mois de septembre moi je dis que nekk ah mënul nekk parce que dañuy préparer loi de finance la loi de mm-hmm. donc en octobre mu ñu dem assemblée nationale installer l' assemblée nationale ba pare installer les députés pour ñu mën a dem vers vers euh, le vote de de de la loi de finance initiale mënul nekk. donc dañuy dem dañuy dem ouverture session bi la en octobre la ñuy ubbi session parlementaire bi député yi war a recevoir les les les les ministres au niveau de de l' hémicycle pour ñu voter loi bi mm-hmm. donc assemblée bi day encourir jusqu'au en deux mille vingt cinq. donc hmm. il faut que cohabitation bi continuer da am. yaa ko day noonu la demee noonu lay demee. ah xaaral ma interroger doyen ci côté boobu. ba hmm. mën nga bàyyi ba Philippe Montey ñëw rek ñu dugg ci kii bi. non non non ah, mënul mënul nekk. parce que mënuñu ko di mënuñu ko dissoudre alors que tout le monde en parle. le président ne peut pas la. Ah, à partir de septembre Adama dama la mënul nekk c'est-à-dire dans la pratique mënul nekk xam nga tax ma ne la mënul nekk. dans c'est à dire au mois d'octobre dañuy ah. ubbi session parlementaire bi. Hmm. loi de finances initiale bi ci lañ koy voté. Ah. les les ministres vont aller à l'assemblée en en en commission technique et en plénière et ça prend trois mois. donc dina dina am difficulté donc il faut que la cohabitation puisse continuer à exister au niveau de la République mais loolu nag lu muy laaj peut-être. mooy une élégance républicaine de la part de l'opposition ki est parlementaire maintenant une élégance républicaine de la part du pouvoir en place ñoom ñu mën a waxtaan jël intérêt supérieur de la nation sénégalaise teg ko ci maintenant nag dafa am des précédents des un passé bu fi nekk par rapport à cette opposition mais pour wax sénégalais yi ne leen opposition bi voté wuñu loi de finances initiale bi 2024 opposition bi nekk pouvoir nii mhm. le pouvoir en place n'avait pas voté la loi de finances initiale le pouvoir en place avait une motion de censure contre le gouvernement de Macky Sall, de Macky Sall mm -hmm. le mhm. gouvernement le, le, gouvernement de, de Amadou Ba mm -hmm. donc, que suñu dundee la même chose suñu dundee la même chose naka lay demee. naka lay demee ñoom daal ñoo ko fi njëkkee woon. ñoom ñoo ko njëkkee woon. Ah. maintenant suñu dundee la même chose naka lay demee. si le gouvernement nag yoo moo la déggee. waaw mooy li lépp li nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ko doon xeex. waaw. aujourd'hui ils sont au pouvoir. ils sont au pouvoir et ils sont rattrapés par ils ça. ils moo tax nag le président le président de la République qui est élu. Mhm. am na taxawaay bu mu war a am vis-à-vis du des groupes parlementaires pour man dafa war a recevoir les présidents de groupes parlementaires. parce que y a mhm. trois groupes parlementaires yu am yàlla a le groupe Benno Bokk Yaakaar y a le groupe Wallu y a groupe Yewwi Askan bi mhm. na recevoir ñooñu ñu waxtaan. ñu waxtaan pour pouvoir sauver pour mu bañ pour ñu éviter la crise institutionnelle bi nga xam ni moom mooy am.